may taxawee à part di Charles wax c'est pour revenir un peu benn lu mu doon symboliser euh, xam nga léegi la derbi ñàkk solo au Sénégal mais nous notre temps en France bu nekkee xale dañu doon vivre les derbi ay Jean Gia Jaraaf mais Gia Jaraaf lu ko jëmmal bokk na ci Joseph Koto parce que sa dualité avec Abdoulaye Ba mhm. latéral gauche du Jaraaf à l'époque muy euh, refléter renvoyer le spectacle que ce que ce monsieur a offert aux, Sénégalais ak benn constance am ci wàllu performance man je l'ai connu jeune ba ba muy bàyyi maanaam lu ku neex a jël koy ñëw place am quand eu l'équipe de rêve du Sénégal bi dem euh, Caire 86 quel que soit quintessence équipe bi ak volume de jeu beeg individualité yi Joseph Koto était dans l'équipe il a su être dans l'équipe. À l'époque, on parlait de locaux. Mais les pros sont venus, ils l'ont rejoint dans l'équipe. Ça, je crois que se assez significatif. Et trajectoire am li si gën a li ko gën a parachever mooy ñu nekk un technicien. Hmm. la petite catégorie yi gën a U23 euh, yeeg tout ce que tu veux comme en deçà de de l'équipe A donte yor nga ko def ci ay performances nekk un homme du football ADN football. donc c'est le football qui a perdu un de ses enfants yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. Cheikh